nan nga ko mën euh, jàngatee ndax ñu ngi koy toppee leex moo diffamation ak diffusion de fausse nouvelle. mais oui non gis nga Cheikh Oumar Cheikh Cheikh Yérim hmm. dama lay wax benn affaire fi gis nga Cheikh Yérim gis nga euh, dafa amoon ay jamono ce qu'on appelle lu yi doon wax lu xale yi doon wax toog muy dox. Hmm. gis nga toog muy dox boobu moo fi jeex. toog muy dox boobu dafa regroupé woon beaucoup de beaucoup d'acteurs toog muy dox bi. y avait des journalistes alimentaires yu si nekkoon yoo xamante ni ils étaient là uniquement pour le problème crypto personnel nekkewuñu foon lu dul tirer sur ces opposants yi nga xam ñoo fi nekkoon di alerte di wax dëgg ñoom di côté de du gouvernement am seeni presse boo xamante ni ñooy taxaw lépp lu ñuy wax si luy dëgg ñoom ñu jéem a fexe nuñ ko teggee. pour wax dëgg moyennant quelque chose loolu lañ fi nekkoon c'est le cas de mus naa wax fii benn jour si plateau bi nekk euh, gis nga yaa a ce en politique yaa a ce euh, les prostituées politiques il la prostitution intellectuelle c'est des c'est des intellectuels au nga édifier population yi si li nga xamante ni mooy jëm da euh, rien que pour la bon marche du pays non non mhm. yow da ngay utiliser sa sa sa sa sa xam-xam pour di réeral nit ñi mhm. da ngay utiliser sa xam-xam si beneen anam moyennant quelque chose ça c'est pas bon loolu rafetul baaxul mhm. gis nga baaxul dans un pays gis nga un journaliste da nga war a am da nga war a am éthique am déontologie. surtout un journaliste man je ne peux pas je ne peux accepter mënuma ko nag mënuma ko baal un Cheikh Yérim Seck di journaliste ñëpp xam ko mu am xam-xam mais sax xam-xam nga jëmale ko ci ci njublan kàcc et booy kàcc amuloo ci amuloo ci war ma nu la neex nga koy kàccee lu la neex ngay wax. Mhm. léegi euh, bon li xew nii boo taxawee ci plateau télé di wax naan benn kii moo ko jaayoon arme. Jérôme Bandiaki ku ko jaay mi woon fii. Mhm. te bañ koy jaay kii bi ma comme si yow téete yow yaa nga foon jour boobu nga xamante ni affaire bi nga am. Ah. xam nga c'est très grave ñu woo la convoqué la nga ñëw on te demande des explications tu n'es même pas capable de fournir ay preuves yoo xamante ni sax leer na. Mhm. tu crois que garde à vue bon les gens le font comme ça garde à vue. Mhm. mais garde à vue on le fait pas comme ça. garde à vue si on te convoque nga ñëw ñu ñu la def di kii bu fekkee dafa nécessité garde à vue mais parce que dafay am ay éléments yoo xamante ni ñoom dañ ciy sukkandiku pour pour teg la garde à vue mhm. mettre la garde à bu fekkee da nga war a dem ba war la mettre sous mandat de dépôt dañu am ay éléments yu wóor yoo xamante ni moo leen di permettre ñu yóbbu la sous mandat de dépôt mhm. léegi nag jeune di dis pas ne mandat de dépôt wala garde à rek mooy entre entraîner ipso facto que ne yow euh, tu es fautif mhm. non on respecte la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire pour man tu es mais nag garde à vue dafa am. garde à vue dafa am mandat dépôt dafa am mais garde à vue on ne le fait pas comme ça defewuñu ko noonu moom ci boppam moo wax on l'a convoqué il est venu laaj nañ ko enquêteurs laaj nañ ko wax gis nga nag fii. set fois-ci xam nga lu may lu may vraiment lu may euh, saluer maa ngi saluer euh, benn euh, professionnalisme bi nga xamante ni. cette fois yi nos éléments là. de sécurité ñu ngi koy def. Mhm. depuis que ñu commencé interpellation yi ba léegi dara sennul. Mhm. dégguloo fenn y' a de manipulation y' a pas de kii les gens ñooy agité rek nit ñi ñooy wax ci plateau télé yi di wax di kii ak yooyu mais. Mhm. jusqu'à ba fii ñuy waxee ni y' a rétention d' information. ils la là de de de de ñu ngi enquêter. bu aajee ñu yóbbu euh, mandat dépôt ñu teg mandat dépôt. bu aajee ñu def la garde bi ñu def la garde à vue mais. bien nombre kenn gisuguloo kenn si ñoom ku génn. Uh-huh. bugg a manipuler wala intoxiquer wala def leneen. professionnalisme bi ñuy liggéeyee actuellement nii moo jaaxal ak ñu bëri moo tax ku nekk ngi génn fu nekk di yuuxu. Uh-huh. c'est normal nag c'est normal parce que régime bu bees bu ñëw la. Uh-huh. ñëw ak dans le cadre de jub jubal jubbanti. réduction des comptes bu amee ñi fi nekkoon lañ daan def naka sudul noonu mu ñaaw ñëpp gisoon ko. bu fekkee ñii dañu ñëw pour teggi loolu def ko dana metti dana metti parce que ñi fi nekkoon bon c'était une minorité certes mais une minorité forte mm-hmm. amoon ay appareils yu bëri yoo xamante si lañ si yooyu lañ sukkandikoon di def li ñuy def di téeral di tiiñal askan bi xam nga la sortie du premier ministre récemment mm-hmm. qui l'a contredit ñi mu cité nommément mhm. est-ce que dégg nga leen boobu ba léegi ñu ŋàng est-ce que depuis que état bi commencé di alerter di wax lu bëri ci tolluwaayu réew mi mhm. est-ce que gis nga benn ministre de la république yu fi nekkoon en son temps mhm. bu génn def sortie gisuloo ko gisuloo leneen lu dul les journalistes ñooy jug bon une certaine presse mooy jug parce que seen presse lay ñoom ku si mel ni ay ma Madiambal Diagne moom ay waxam waxuma ko ma Madiambal Diagne. Mhm. ay euh, Yoro Dia ay kii mais ñoo ñëpp da ngay xool fan lañ bokk. Mhm. fan bokk c'est normal que ñu yuuxu. c'est normal que ñu yuuxu mais l'essentiel que les enquêtes su nañu suivre seen cours. Mhm. te li ci war lépp daal population yi loolu lañ soxla. Euh, c'était une demande sociale réduction des comptes c'est une demande sociale. lu neex waaye wax dootu fi amati. dootu fi amati nañ waxante dëgg jékki-jékki rek ba mu neex la nga tiiñal nit wax ko lu neex ci yow suba alors ñu jàpp tëj. Mhm. instrumentaliser justice bi lu leen neex ñu def ko loolu dootu fi amati. exactement dootu fi amati di di di leen si dikkaat léegi alors Mbow. Euh, convocation wu euh, Cheikh Yérim aussi ana ban jàng nga si mën def ak euh, nu ko mettre en position waaw man d' abord damay mosuloo si boroom xam-xam bu jubadi <laughs> ñun boo xoolee li ñuy borom bi dénk lépp. Mhm. sant ñu ko mooy jub. daf na sax boo jubee ma xamal la. Mhm. kon borom xam-xam bu kàccoore danger public la. et pour rappel yaa ngi fàttaliku histoire euh, Moussa Dadis Camara. Mhm. bu ne Guinée. Guinée dafa am lu ma a def ay révélation lu doy waar bés. Mhm. si Cheikh Yérim bii. da mhm. daf koy ñëw mu ne ko yow maanaam président nga te gis naa ne sa image sa communication baaxul. dama bëgg nga may jox nga jox ma su ma juumul ay cinq cent millions. ma bind si yow pour defar sa image. mais loolu c'est un danger. bu grave c'est telement dangereux que nit taxaw di wax ne un président de la république bu Guinée gii un pays vraiment boo xamante dafa néew doole nga bëgg yow di soutirer les fonds de ce de ce pays là di ko jël pour sa bopp ngir di bind loo xam du dëgg pour na defar image waaj depuis bi ma déggee loolu bépp amour ak estime bu ma amoon si nit ki keroog la jeex mu départ fi def fi nag lu ne weng nag si réew mi nii fii. Mhm. gannaaw bi fi livre moom ñibbi si ne 40 ans am naa lii dem naa màkk léegi atteindre naa lu ma waroon a am ba lu waroon toog parce que moom moo ko wax. quelque temps après mu dugg si yeneen affaire mhm. ba mu jaral ko ba mu jural ko prison mu dawalaat tuuti moom Cheikh Yérim mu taxawaat mu ne bàyyi na espace public bi dootul mhm. communiquer léegi dafay def retrait dem nekk si mbiru boppam mais li góor gi wax sànq eh, bu nekkee ne yow si sa kàddu si ngay dund si wax lu amul ci ngay dund boo toogee tamit toog bi du yàgg mu jékki-jékki ñëwaat mais il faut ñu xam ne rien ne sera plus comme avant parce que bu njëkk ba état yi fi nekkoon dafa am nit ay nit seen nit ñoo xam ne ñenn ñi dañ leen di jox pour ñu wax lu bon si nit ñi mën nee na jaxase ak peuple bi su ko defee ñoom ñu mos a di kon ne di reyee parce que c'est les mooy la politique machiavélique la diviser nit ñi pour ngay mën a exister. ñu dem ba si kanam am ñoo dañ leen doon ragal na saawaay làmmañ bi dafa ñaaw jox ko ngir mu noppi ñeneen ñu recruter leen ne la sama adversaire bi day yëg si kawam ba ko wàkki de ko xas di ko wax lu ñaaw. loolu la loolu lañ tàmmoon dem di gis. Cheikh Yérim nag parfois da mën a wax ne amul xam-xam waaye xam-xamam bi n'est pas utile. parce que yan proposition la ñu wax ne parce que bu ma déggee na Cheikh Yérim journaliste bu mag la borom xam-xam la. Mhm. yéen ñu lire Cheikh Yérim yëpp wala ngeen déglu ko lan la seex Yérim andi contribution bu positive na lii bu fii bu ñu fi jaaree développer le pays la toujours dañu ñëw ma je des météo politique te météo yu bëri du nekk dëkk. Mhm. fii la wax ne li fi bàyyi li yóbbu Ousmane du fi bàyyi Diomaye météo la woon. Mhm. il n'avait pas raison. ak mën nañu si cité yu bëree bëri livre yi muy bind yëpp ay faits divers lay wax gis naa kenn si corniche bi. ba ma dajee mais loolu est-ce que bu nekkee ne xam-xam boobu mooy borom xam-xam. Uh-huh. man boobu yàlla ñu yàlla mosal si boobu noonu. parce que soxlawuñ ku mel noonu. Uh-huh. man nag damay dégg parfois sax journaliste laa koy wala yenn ñu naan seen xëy xam-xam la man en réalité. Uh-huh. xam-xam bu dul jëriñ man dama jàpp ne vraiment kàccoor la rek ak nitu iblis la. man loolu laa mën a wax léegi nag su nekkee ne moom